soq lan moo waral jooy. ndeysaan soq dafay jooy. ndeysaan c'est c'est l'émotion dafa bëgg. dafa bëgg dégg nga ma ne. billaay wallaay gis ko ma. mënuloo bu ñëwee booy bi daal ah, lan la lu tooyee sa xol ba nga jooy lan la. alhamdulilah rabbil alamin sant nañu yàlla bu baax. gis nga lii. duñu tax a wax lu ñu war ta wax. li ma waxoon départ bi rek laay waxaat fi ma tegoon sama tànk laay tegaat ñi ay xale lañ dafa guñ dara ci làmb làmb xale lañ doon bëre te bu demee ba ay responsable ñu def leen ay responsable ni ñooy responsable gox yooyu ñu génn naan ay des na diw ak diw Franc daan ma Modou loo génn ni des na soq bu ndaw ak Petit yàlla moo fi nekk sama digganteeg Franc yàlla moo bañ lépp luy may nit ndam nekkoon naa ci def naa ko suñu borom xañ ma ma dellu santaat yàlla suñu borom baax ñaari xale bu ñuy bëre war nañ ko mun a rafetal ñu bëgg a jël dër bi di ko dugal ci diggante booy Ameth Lo suma ma raq la duñ ma deñaat li ma waxoon démb départ ba tey fa laay teg sama tànk man taalibi suñ bàmbalaa dara mënu maa fëkk ba may wax lu ma war ta wax ci ay média ay affaire fu dul média sax du ma fa wax lu ma war ta wax amul droit ñaanal doom waxuma bu mu ko ñaanal de ndax man sama raq laa doon ñaanal pour mu am ndam mais ni mu ko waxee moo rafetul moom champion la bëri na bis bu nekk ñàkk ko bëri na combat capital bu nekk ñàkk ko dañ koo encouragé dama bëreeg Franc ñàkk mu génn am nu mu communiqué kontaan reetaan ñu des na soq bu ndaw ak Amet loo te ñu ay booy lañ judduwuñu lambu xale lañ doon bëre li wér te wóor mooy ñoom ñaar ñëpp sumay raq lañ su ma raq laa doon ndam suñu borom defal na ko ndam maa ngi santaat suñ Tuuba bu baax santaat yàlla bu baax day duggaat parcelle wala day génn non non moom nekku fi pour parcelle nekku fi pour géejawaay xale la képp ku ko làmb booleel day bëreeg moom bëriwul derbi bëriwul 100 pour cent bëriwul dara li muy bëre mooy làmb xale boppam lay bëreel carrière am lay defar victoire bi bokk na ci lu yokk pa ay pa ci lambam mais mu nekk champion xale la ba tey fi mu nekkoon ci doon xale fa la nekk ba tey yàlla na ko yàlla suturaal yàlla na ko yàlla dolli suturaal di ñaanal Ameth Lo di ko encouragé bu amaatee beneen combat bu dul waa Pikine yàlla na ko suñu borom defal ndam ñoom ñëpp suñuy raq lañ nañ ko rafetal ba pare dama dégg keneen saa Touba keroog mu am ay discussion yu am fii mu toogaat télé mel ni kuy tëkku ni waa Pikine nañ ma xaar bu dimanche maay indi Ameth Lo ni musta téye mbër ci loxo waa Pikine daan ko mu war a ñu béeg moom tey daa ñëw sañ sa ba rafet def jasneeram bu baax ñëw ci digg géew bi indi Ameth Lo soq bu ndaw daan ko bu tëdd ci kawam yàlla moo fi nekk te ñun ñëpp ay taalibe suñ Tuubaa lañ lii métier la rek waruñu koo def ngir ay noonoo wala ay tëkkuwante yàlla rek moo fi nekk tëkku baaxul taxaw naan ay musuma ngem bu mbëri indi ko ci digg géew ñu jàpp loxoom yóbbu ko waa Pikine daan ko tey waa Pikine daan nañ ko yàlla moo confirmé man soq du ma yàlla du ma yónanti li ma mën mooy sama raq am combat ma xar sama tànk tubay dugg fu nekk ñaan lu pour mu am ndam parce que day sonn ci man moom war na mën a ngem mbëri indi ko comme il faut mais toog ci média naan waa Pikine nañ ma xaar bu dimanche maa indi Ameth Lo na ñibbeeg gàcceem sama mbokk taalibe la du ma wax ci moom lenn lu ma war wax ci moom yàlla na ko suñu borom defal jàmm mais gars yi nañuy defar communication yi te xam ni yàlla moo fi nekk.